waaw match tey bi de ànd see yaakaar ju mat sëkk ak ngëm-ngëm gu mat sëkk laa ci àndal man tey waaw. su ma ko teg mooy le champion d'Afrique waaw te bu dee ci euh, maam histoire jaar-jaar dëgg la pays baa moo ñu gën a kii waaw moom moo li mu si mondial ñun parti wuñ ko si mondial te final la ko encore trois fois ñun mosuñoo dem demi final mais suñ booy suñ sóor yi ñu yor fii tubaab bi nekk ci euh, maam sàmm naa li gën a mag. ñu fay football ñoom foofu lañ nekk football di wane lu leer kon moo tax ma am gëm-gëm ak yaakaar ju mat sëkk tey dañu am ndam si kàttu suñu borom waaw gaynde yi de suñu xel dal na si ñoom quoi bi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek euh, gars yi nee nañ Hollande mooy favori mais man football instant yi nii mën naa ne sax favori amatuti favori ci tur rek quoi mën na ne euh, Hollande moo ñu gën a rëy tur quoi ci football mais nag lépp ci biir bi la parce que bu ñu waxante dëgg ëpp ay jour ëpp ñooy joueur te suñu joueur ak seen joueur ñoo bokk même championnat yi ñuy ñu benn joueur bu mag mais suñu xel dal na teg incha allah ñu ciy dugg si jàmm génn si jàmm. da coupe du monde bi am naa ci yaakaar coupe bi yal na ko yàlla indi ñun senegal dara jommul kilifa yu baax yi ñëpp a ngi na xool yi ubbeeku nit ñi rafet na xam ne tey victoire rek la mu gis mooy la mooy sax laa dem jënd ji nii mooy laa dem jënd ji fas yéene koo sol ngir Sénégal. victoire lañ soxla te war nañu mën am victoire parce que boo équipe yu mag yi xam nañ Sénégal. Sénégal di dindi équipe bo xamni ni nii bon ci bir Afrique c'est le meilleur équipe donc ñom li ñuy jël Sénégal bàyyi bàyyi nañ ko xel bu baaxa baax parce que bu xolé aussi tamit joueur yi euh, les les grands joueurs yi ne Hollande mo ak les grands joueurs yi Sénégal ñoo bokk même club bu demee Barça noonu donc ñu war ñu mëna war ñu mëna Hollande facilement du neex nak du du neex nak du yomb mais war ñu mëna gagner dara am yaakar bu ki rek am yaakar bu fort rek comme niñ ko amé won ci Cannes rek moom ñun dañoo bokk ci façon supporter yoo xam ne duñu mës a découragé même match sax dañ koy jëlee lu sérieux surtout maa nag match boo xam ne mondial du nekk lu yomb nag mais rek ñu ngi ñaan yàlla comme ni ñu ko daan ñaanee rek yàlla may ñu ci ndam lu yaatu am naa ci yaakaar te ñu ngi koy ñaan yàlla mu may ñu ko Sénégal am ndaw ndam ci Kaolack dem ba yegg ca coupe du monde bi yàlla may ñu ñu indi ko Sénégal. bon am nañ bon quelques handicaps mel ni Sadio maane mais nañ xam ne soo dañu xam seen bopp y' a plusieurs Sadio y' a plusieurs Sadio Mané dans le terrain ñun ku nekk na nga teg sa bopp yaay Sadio Mané. bon suñu sarax la rek waaw ah, man loolu laa ko jàppee sarax loolu loolu loolu lu baax ci équipe bi la incha allah ndam rek ay am. xam nga Sadio Mané nag dëgg la manqué na si équipe bi trop trop mais booy nekk ci équipe bi kenn gënu leen a xarañ. Sénégalais nan bàyyi lool benn jour mun noo tere bañ a football kenn turu Sadio Mané dëgg la yóbbu nañu fu ne mais li olof Ndiaye naan euh, ñoo di gudd dagg booy tey la ni gën a wonal seen jàmbaar. bu buñ demee gën a yokk seen xadar pour fi Sadio daan aw ñu aw fu ko dootuñu yëg dara ñun. wante am na yaakaar booy xam nga danañ def lañu war a def quoi xam nga équipe moom onze départ la bu bu bu doon yaakaar gi nekku fi sax wante am na yaakaar booy fi des. comprendre nga. waaye onze départ bi man daal man pour man boog Bamba Dieng dinañ ko poyanteloo daf Ismaïla Sarr benn extendéral benn bi ñu def si comment dirais-je Krépin Diatta voilà <laughs> ñu def si benn extendéral bi. mais nag bi ñu defee daal milieu bi xam nga ñu teg Nampalys Mendy Gana Gueye yooyu daal baax na xam nga devant Ségom yaa ma gën a xam xam li fi nekk. waaw waaw ay ñoom sama Koulibaly ñoom ne nañ leen mais daal en tout daal nañ am yaakaar ñu xam ne dina baax. côté gauche bi ñoo ngi siy sikki saaka mais loolu xëy na xëy na ñu xam ba xam Aliou Cissé coach la wala du coach xëy na xam-xam di feeñ. lu tax ñi mu gënoon yaakaar si côté gauche bi ñëpp a blessé léegi ñu ne xool ba xam foofu dana mën a modifier comme ni ko ñoom gardien laa defee ba xam dana mën a modifier ba fa point boobu noonu du feeñ te lañ koy tey xam tey lañ xam moom xam-xamam fu mu féetee woon. ci kanam nag. waaw li ci kanam moom man am naa si yaakaar moom parce que ku mel ni Krépin fa nekkee Bamba Dieng nekk Euh, beneen booy bi Ismaël Sarr nekk fa kooku dama am yaakaar ju mat sëkk na mën nañoo mën nañoo marqué ay bii. Iliman Massa Iliman Ndiaye sama doom baay macha allah kooku am naa yaakaar ci bu baax baax te ñoo ngi koy ñaari mu réussir mondial bu baax waaw. bu dee bu dee milieu défenseur bi kooku moom ministre moo fa nekk ministre moo fa nekk Koulibaly ak ñoom Pape Pape Gueye waaw macha allah foofu daal moom sama xel dal na classement bi 4-3-3 rek 4 kadi jitu bo tege tegee Koulibaly Pape Abou Cissé pour man yusuf sabali ak Abdou Diallo pour man lola gis. milé bi bo tege Gana Gueye comme dab pas de six nga tek Cheikh Kouyaté nablis xaar wala ben Cheikh Kouyaté xaar nablis départ. attaque bi attaque bi attaque bi man nak damay xaw a nga tek Ismaïla sar tek karefin tek Boulaye wala nga ki au Boulaye nga départ Famara Diédhiou mais ñu li li ñu faral di gis ma Famara Diédhiou deuxième mi-temps la gën a mënee quoi comme comme ñu départ loo Boulaye Dia deuxième mi-temps ñu indi mu def différence. te gars yi nee nañu Hollande mooy waaw ànd ci moom ànd naa ci côté ndax ku am défenseur bu toll ni Van Dijk moom maanaam Sadio Mané nekkoon fi rek moom moo doon moo doon moo doon moo doon tax ñu gërëm confiance ndax ñoom ñaar xamante nañ ndax ñoo bokkoon fi nekk pour pour Sadio Mané romb ko jàll dina yomb mais comme ñi mi fi nekk ñoom Sarr ñooñ desañ nañ koo xam nekkuñu moom dina xaw a compliqué mais nag am nañ yaakaar daal dina baax incha allah. waaw classement bi man man moom bu doon classé man man 4 3 lay teg match bi tey milieu. Mendy loolu dafa leer Edouard Mendy acte bi euh, comme Fodé Ballo-Touré dafa dafa dafa mën nga andi Sabali Sabali mën ko indi ci gauche bi Formose Mendy nga teg ko droit bi Abdou Diallo Koulibaly digg bi mën nga mën nga fa teg euh, Nampalys Gana gay pap gay man loolu la gis attaque bi man bu ma classé crépé dama koy xarlo tek Ismaël euh boulay Dia ak ak ak euh, ilman Ndiaye man loolu la gis loolu buñ ko defone mom man jàpp naa ne moom dinañ am dara quoi. way lu ci si moom li war dafa mo xam na ko am ku dem mondial kan def li nga war a def jël ko yaagar na né ken lu jàngate liggéey am ci entraîneur yu bari lim def defuñu ko kon ñu am ci mom yaagar xam nañ jour yi mu provoqué ñaap ay problème ñu toog si baa bi ñëpp a mën a fubal na def lu daal xelam dat ba pare déglu conseil parce que ñoom El Hadj a ngi fi ay jour a ngi ci baa bi ñoo xamante ne xam nañu bu leen dee déglu ya mën kon coupe rek bi yàlla mën nañoo dimbali mu wàcc xadaram da xam ne ñun dam rek lañ bëgg waaw na wàcc xadaram da dal da xam ne Sénégal rek lañ am. ndamu Sénégal moo sunu ndam mooy ndamu Aliou Cissé mooy ndamu pat dans le monde Aliou Cissé indi nañu coupe d'Afrique yaa noonu indi coupe du monde réew mi tas jàmm neex Sénégal naat loolu ni ñaan équipe bi dama dama am confiance cent pour cent barke borom daaru moom laa gëm man damay am ndam tey incha allah gëm naa dañ def mondial bu baax incha allah